Aïdara euh, en tout cas Ahmed euh, une petite digression ah delluwaat de plein pied dans le monde dans le monde médiatique non non on m'invite comme ni may invité nii ah, non waxuma loolu non non waxuma loolu en fait da danga da nga da de Sen TV nga dem fondé sa sa TV di installé di jël say marque mais Euh, da nga delluwaat seen TV reprendre li nga xam ne euh, moom mooy tes tes tes tes activités yi nga fa daan def. Euh, lan moo motiver ce retour là. non non non sama activité yi moom xam nga ne man li ma spécialisé wu mooy def wàllum revue de presse wala. mais lan moo tax sa retour là non defuma ko defuma ba pare gis nga may mun a man foofu moom li tax sax nga dugal ko ne digression du digression de. Hmm. gis nga nous de la presse ñin laa wax ñin. yàlla na ma yàlla jéggal mais euh, dañu xeeb suñ bokk wala ñenn ñi bokk yow nag jàpp naa ne ñi xeeb seen bopp yow bokkoo ci parce que man témoin laa dama xam fi nga jóge ak fi nga si ci kanam peut-être dinañ fa dugg gis nga Mary Teuw Niane keroog bi mu paree ci gouvernement dafa dem delluwaat Babacar Diop le maire de Thiès keroog bi mu faloo dafa dem liggéey en tant que maire tous les maires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii wala boog ñu bari boog ñoo xam ne politique du seen métier yow yaa may tooñ chaque jour su ma ne la non maa ngi ci biir nga ne ma non non non yow ma la comme politicien par contre presse bi ils te disent keroog rek benn xale bu jigéen jeune reporter la assemblée elle vient elle me dit mais Ahmed yow saa yi booy nuyoo da nga naan monsieur le ministre monsieur le président chers collègue de la presse ñun est-ce que say collègue lañ ba tey ma ne ko j'ai pas compris loolu après mu jaaxal ma am ma ne ko mais madam lii nekkul métier lii juróome at la ñu xool ba xam di nga fi toog wala doo fi toogaat muy député muy maire dem liggéeyal sa askan ba pare nga mën ko cumuler yow ak say fonction ministre directeur général euh, fonction boo mënti am mais daal presse bi daal moom j'ai l'impression que ni bon parfois man du ma sax comprendre. mais mais mais mais suñu. mais pour lan suñu métier ni ñu ko tabaxee. waaw dafa incompatible avec des fonctions politiques partisanes. ah bon

membre d'un directoire de campagne ne dites pas ça s'il vous plaît Maïmouna non non non comme notre confrère non non attendez Maïmouna defal ndaak ma expliquer la rek bu mu dagan ci nii araam ci ñi ci des même ce matin maa ngi wax loolu sam benn xarit ma ne ko man damay seetlu ñuy attaqué ma jambal jaañ di attaqué yaa xam yaa xam il est du secrétariat national de l'APR de l'APR il est le directeur général du Soleil ma jambal moom xamee ma ko carte. affaire waaw non non ma rek non dama ne man ñoom ma jàmbal Abdoulatif Coulibaly ak Souleymane Jules Diop ak Racine Talla Yakham Mbaye ak man ñooñu est-ce que mës nga dégg man ma attaqué leen xamala moo tax xamala moo tax ñoom li ñuy def loolu laa d'accord xamala laa d'accordul man kuy tappale safoo yàpp safoo jën ñoom dañoo affiché wane ne carrément ñun ay taskatu xabaar lañ mais nous soutenons le président de la République Macky Sall am ñu ci d'accordul di leen attaquer di leen saaga di leen song di leen def dugg def ngeen def moi je le fais pas ils ont fait leur choix ay camp ñoom ñoo fi ne xam nga lan moo bon Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum par par loo moo bon mais far aayul ñoom ñu jël position mu leer nañu ñu wonee fii lañ far man de nangul naa leen ko mais noonu nga xam ne nag noonu lañ leen ko nangulee. ñenn ñi nekk ci nguur gi tam noonu la ñu war a nangulee mais dans les plus grandes démocraties may mun a nga ne suñu métier ni ñu ko tabaxee mais aux États-Unis en France les journalistes là dañuy génnee ay livres yu tàng jër ñii far ci républicains yi ñiy far ci démocrates yi te ñooñu ay journalistes lañu ñu nekk ci télé ak rajo di wax. alors mais quoi Sénégal. foofu ñii buñ ñii buñ faree ci nguur ñii buñ faree ci nguur loolu bëgg a dagal. ay dara bu nekkee taskatu xabaar bokk ci opposition mais dañ koy bindal lettre. ne ko di nga arrêté. xam nga CNRA. waaw mais waaw mais nga engagé campagne bi CNRA dafa exiger waa pour que nga arrêté. au moment où y avait des journalistes sur des listes yu bokkul ak Yewwi yu nekkoon ci télé. comme ñan. non du ma la jox tur bi. mais si Ndoye Bane dañ ko waxoon mu arrêté. mais dama ne. Euh, waxu yow ñu ne la nga arrêté waxuma la Ndoye Bane tuddaluma la tur tuddaluma la kenn. waaw dëgg ma expliqué rek. xam nga kooku sax sama xarit la mais comme que yow yaa may wax comme ñan je suis obligé de le citer ñoom may Mbaye Ndiaye Mame Mbaye Ndiaye sama rakk la maag moom ñu bokk benn groupe de presse mu nekk lis ci élection locale yi falaa ko bàyyi mais loolu wërsëgam la te jamono ji ñu def loolu jamono ji ñu def loolu comme que sommet payé la man naqariwuma woon xam la moo tax naqariwuma sax dama ne ndokk ruq yi nga xam ne jotuma foofu woon yegg géejawaay may nañ weer yi